Tivaouane TV di biddéew bi leen di gindi ci xadaratu ak Tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de la Tijaaniya Mustafa wa salliyan ya ilaa أبدا أن محمدا المختار في القدم مصطفى وسليا يا إلهي وجزيا أبدا وأن محمدا المختار في القدم سيد الحاج مالكنا من كل وصف حميد هذا أفعال تفضيل رجاء البرايا يوم مصدها من يا إلهي واجزي المصطفى أن محمدا المختار كسب مود مالك دفلني من كل وصف الخميد دين هذا أبو آلا تفضيل رجاء البراء يا يوم مسدهمين asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ndigal jóg na de jóge nag ca sëriñ sëñ Cheikh ndigal jóg na jóge ca sëñ Sidi Maxtaar ndigal jóg na jóge nag ca ka nga xam ne kii mooy sëriñ Souleymane jiite xalif général bu Cheikh jiite ànd nag ak seen jarbaat beeg seen doom ji nga xam ne mooy mu Mamadou jiite ñu woote nag bés bu mag boo xam ne bii nag mi ngi xew nag fii nga xam ne nii mooy Zac Mbao bësu diine bésu jàmm bësu sutura mu nekk nag bés boo xam ne bile ñi ko woote diine rek moo tax mu jóg ñu def ko nag ci loo patronage ki nga xam ne nag moo jiite réew mi yëpp di président Macky sal président de tous les Sénégalais ànd ak kan a jigéen ju baax ja nag yiw lool di ajatu fay sal mi nga xam ne ni mi nga ci daara yi mi ngi ci ndimbal jaboot gi mi ngi ci nga xam ne ni tabarkàlla mooy groupement yi bëgg loolu diine moom i tamit ah dëgg-dëgg nag fa mu jiite nag ñi nga laa wócc seen bésu mag boobule ànd ak kan seen xarit seen soppe ki nga xam ne daal mooy Adja Aminata Touré mi nga xam ne ni nag moom ci boppam moo nekk nag conseil spécial nag du président de la république ànd ak kan ah sunu jigéen bu baax boobu nag ministre conseil Zahra Iyane Thiam moom tamit ñu ngi koy wócc ci bésu mag boobule ndax bés dina des na mel noonu ku tabbi daal incha allahu taala fii nga xam ne nii mooy Zac Mbao yemoog le 28 avril ci Zac Mbao di nga xam ne daal dëgg-dëgg daal diine ak l'islam daal bokk na daal ci pays yi nga xam ne nii Zac Mbao am na ko du sori nag dañuy tàbbi rek nag ci ki nga xam ne kii nag mooy coordinateur bu mag bi nga xam ne mooy coordonné lépp Amadou Samb moom ci boppam moom laa jox kàddu gi Amadou yow la noo déglu. Euh, jërëjëf Amadou Mbaye comme ni nga ko waxee rek guddi googu guddi di ko ëpp ci Sénégal rawatina sax ci àddina muy guddi gan guddi sant Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi ci woo mboolem imam bu yeewoo ci Zac Mbao ak li ko wër mboolem délégué de quartier bu yeewoo ci Zac Mbao ak li ko wër lu ko dalee Petit Mbao Grand Mbao Rufisque Kër Massar ñu ngi leen di woo ci guddi googu muy guddi le 28 avril ci bayal bu mag ba muy terrain de football ba fii ci Zac Mbao jërëjëf Amadou waaye def naa ne Ibrahima Sall tam ñu ngi koy woo ci bésu boobu de mi nga xam ne moo jiite SICAP ak ki nga xam ne kii mooy la job directeur de des investissements moom tamit ñu ngi koy woo ci bésu mag boobu de Ablaye Timbo tam meeru Pikine ah fàttewuñu ko de waaye du ñu sori dañuy jox rek nag ki nga xam ne kii moo représenté famille bi di Mamour jiite moom itam mu sànni ay kaddu. auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa inni auzuha bika zurriyataha min ashaytani rajim rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa ñu dëgmal nag bés bu rëy boo xamante ne mooy sant Seydina Mohamed mu yemoog juma ci 28 avril fii nii ci Zac Mbao ñu cëraleen ci nag cër bu rëy boo xamante ne mooy invité d'honneur muy képp koo xamante ni yaa ngi askanoo ci njiite rawatina muy association jiite famille ñoo ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni sa yaay sant na jiite wala sa pap sant na jiite wala nga askanoo ci njiite ñoo ngi la ciy woo ndax cër bi nga xamante ni imaam cërale nañu ko a wax dëgg yàlla cër bu rëy la boo xamante ni séntuwuñ ko woon ci moom kon ñu ngi ciy woo waa association jiite famille rawatina président bi nga xamante ne mooy Khalil ak secretaire bi di woo waa Caaroy ci njiital Warxa Jaañ ak Pape Mbacke jiite ak sëñ Ablaye jiite di woo tamit waa parcelle ci njiital sëñ Papa Cheikh jiite ak Modou jiite di woo waa Ngaay ci njiital sëñ Maseer jiite di woo tamit waa Thiès ci njiital suñu Papa Mansour jiite ak Pape Sarr ak Maam Góor Euh, waa extérieur waa Italie muy ki ñuy wax Daawda Jiite ak sëñ Mourtala Jiite ak ki nga xamante ne mooy Abdou Khadir Jiite rawatina nag waa benn teli muy Soxna Faatu Jiite ak Mamor Jiite di suñu jur ñuy woo tamit waa Ngaay Jiite bu baax a baax waa Njiite Bawol ak waa Njiite Njaasaan waa Njiite Sañaxur waa Njiite Fasel di woo waa Njiite Pakala di woo waa Casamance nga xamante ne ñooy waa Pakaaw fi nga xamante ne Njiite foofu la soso di woo tamit waa Rufisque ci njiital nday Ndiaye madame Mbay di woo tamit waa Kër Massar ñoom Ibrahima jiite ak suñu papa ju baax ji nekk foofu ñuy woo ñëpp ñu kenn di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. boo déggee sant woowu nag nga xame daal tubaarkàlla daal dëgg-dëgg nag ñooy borom xam-xam yu sell yi jiite ak famille bi tubaarkàlla dégg ngeen nag ni nga xam ne mën na ko sama soppe bi wooyee di di Mor jiite waaye nag ñu woo ci nag maire yi nekk ci dëkk bi yëpp rawatina daal Abdoulaye Timbo ñu ngi ko woo di woo tamit bu baax seen xarit seen soppe ki nga xam ne ki lay moom moo nekk nag Daouda Niang maire bu Rufisque di wootam bu baax Abdoulaye Mar mi nga xam ne tamit moo jiite Pikine Ouest euh, Rufisque Ouest ak ki nga xam ne kii mooy Abbé Ndoy mi nga xam ne tam moo jiite Rufisque Est ak ki nga xam ne kii mooy Souleymane Ndoy président conseil bu Rufisque ah waaye nag du ñu fàtte nag ki nga xam ne nag mooy sunu préfet bu baax boobu nag di Souleymane Ly moom tamit ñu ngi koy wut ci bésu mag boobule am na ak Ndiaga Thiam directeur marché poisson ak nag Abdoulaye Makhtar Diop mi nga xam ne nag mooy grand serigne de Dakar bés baa ngi noonu de waaye daal duñu sori ñu jox nag seen jigéenu bopp nag bi nga xam ne nag moo leen moo leen encan moo ànd ak ñoom te encadré leen di Adja nday Samb moom ci boppam nag moom la ñu jox kàddu gi di ko déglu Adja Ndeye bisimilah aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk julli di asalaamaaleykum mm. waa Zac Mbao asalaamualeykum waa commune de Mbao ñi ngi woo ñëpp ci turu jigéen ñi ñëpp la ñuy woo bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo muri di di woo xaadir di woo laayeen di woo tijaan di woo bépp tarixa ndax moo si sa jiite mi kat suñu doom ji ñëpp la fi nekkal ñi ngi woo tam groupement de femmes yi nekk ci Zac bi yëpp ñi ngi leen di woo ñi ngi woo fas jom takku liggéey bu SDV ak Marine ak Sodeva ci njiital Adja Ndeye Touré suñu présidente bu baax boobu ñi ngi woo groupe sopp na bi mouvement bi di woo jigéen ñi ca nekk ñëpp ci njeetal suñ présidente Adja Leldo Sy ñi ngi woo soppee Khadija di leen woo ñoom ñëpp ci njiital Adja Marie Diouf fàttewuñu kenn ñi ngi woo Adja Kourakan la grande royale nañu jigéen ñëpp takku na ñëpp génn génn leen néegi wàcc leen lal yi dagale leen gan yi recevoir gan yi gan yi suñuy gan la ñi ngi jëm nag ci bis bu rëy le 28 na ñëpp teew bu ko kenn manqué ñu ngi sant ñëpp di woo ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf Adjaratou Ndeye Samb wax na dëgg de waaye nag kan mooy dalal gan yi nag kooku daal mooy nag meeru dëkk bi nag di Abdoulaye puy moom ci boppam mooy recevoir gan yi feggoog nag Alioune Sall mu baax mi mi nga xam ne dëgg foo seen muy dem lu bëgg lu président bëgg rek ca la nekk ànd nag ak ki nga xam ne kii nag dëgg-dëgg mooy Mamadou Gueye bu LONASE ñoom ci seen bopp ñoom ñooy dalal gan yi nag ah gars yi mbaa yéen a bu leen fàtte nag ki nga xam ne kii mooy soxna Lalla Si moom itam ñu ngi koy woo ci bés ba ak Adja ba faal ak nag dëgg-dëgg na Awa Cheikh Doumbouya ak ki nga xam ne kii mooy Adja Cissé ak xari Iyane Thiam moom tam ñu ngi koy woo ci bés boobu ak Ndare ak Ndeye Marème Diaw ak maam joor Seck ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ak Adja Buri euh, Silla ak Ndeye Assou Seck ak ki nga xam ne kii mooy soxna Mariam ja waaye nag ñoom ci seen bopp nag jën jigéen nag tubaarkàlla moo leen di moo leen di coiffé nag kooku daal dëgg-dëgg mooy soxna nag mi nga xam ne nii moom la ñu dékk nag sëñ Modou Kara Mbacké di soxna euh, soxna Dieng mu baax mi moom ci boppam tamit ñu ngi koy wóot ci bés boobu waaye du ñu sori nag dañuy tabbi rek nag ci ki nga xam ne nag moo wóote bés bi kooku nag mooy imaam jiite nag. Zac Mbao bëgg ko lool mu bëgg Zac Mbao fii ko lërante ak ñoom nekk nit ku yàlla baaxal koo xam ne ki diina rek moo ko ñor waaye nag dafa ci askan wi bokk. mooy askanu diine waaye daal dëgg-dëgg mu jëwul puso bi daal mu réer moom ci boobu nag moo wute bés bi kon kon imaam jite yow la ñu jox kàddu gi di la déglu aousubillahi min alsheytani irajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina mawlana muhammad ibnu abdallah nusallimakum bi tahiyati lislam aqulu lakum assalaamu taala wa barakatuh ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi Ah, sant suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Chérif sant suñu yaakaar tey ëllëg Maolana Cheikh Sidi Hadji Malick ñaanal suñu xalif général di Tidiane sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla yàggal ko fii nuyu sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke ak mbooleem xalif général yi nga xam ne ñoo meññ tariqa yi di ñaanal suñu buntu ci Tiwaawoon muy Maolana Cheikh Abdoul Aziz Al Amin di porte parole kër gi ñaana ko yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yàgg woyofal yen bi ci kawam ah ci ndigalam ci la woote bés bii Ah, barki démb la ñu recevoir ñaanal ñu defal ñu ijaaza ci tariqa bi ah jox ñu ndigal nag ci bés bi moo tax ñu gën a am xel mu dal gën a am yaakaar ñuy woo jullit ñëpp di woo soppi ñëpp. ba wootee ci réew mii di réewu Sénégal mun a wootee bàyyi son excellence monsieur Macky Sall soxnaam su baax soosu woo suñu kilifa gu baax googu mooy Abdou Karim Sall directeur général ARTP woo suñu meeru dëkk bi nga xam ne barki démb rek ñu recevoir taxawaayam bu ci mat sëkk def na ko ñaana ko yàlla na yàlla yàggal ko fi muy monsieur Abdoulaye Pouy maa ngi woon ak julit ñëpp. maag ñi nga xam ne ñoom laa àndal mbir mi muy jeunesse musulman des ak mbaaw tout confrère confondu bàyyiwuñu benn tariqa ñoom ñëpp ñoo àndandoo bootu suñu kaw ñi fas yéene ànd ak ñun ci gàmmu gii ren muy onzième édition fukki at yi ak benn ñu fas yéene ko def gannaaw ba nga xam ne ñu ngi ko doon amalee ci terrain basket bi ren xajatuñu fa ñu dem ci terrain de football bi ñu ñëpp woon ñëpp bàyyiwuñu kenn góor jigéen mag ndaw képp ku bokk ci nu Mbao bi rek ñi ngi lay woo kër Mbay Fall buñ demee ba Grand Mbaaw sëriñ Pap Samb Diop mi fa nekkal sëriñ Abdou Aziz Al Amin ñi ngi koy woo ak mbooleem xadara yi nekk Mbaaw dem ba kër Mbay faal sëriñ Diaw ak mbooleem xadara yi fa nekk ñi ngi leen di woo waa Tëngéej yëpp ñi ngi leen di woo bàyyi wuñu kenn di woo suñu soppe suñu xarit yi nga nekk xam ne ñoo nekk bitim réew te saa yu bés bi ñëwee ñu def ko seen yëfi bopp bàyyi mu waa France waa Amérique waa Argentine waa Allemagne ku ci ne ñi ngi leen di woo ak waa Italie ak waa Espagne ñoom ñëpp seen i taxawaay ci bés bi chaque at day rafet soppi yi fa nekk ñim ñi leen di woo woo suñu parrains yi ak suñu marraines yi guddi gi nag ñu ngi ciy woo soxna Lalla si Bintu Dabbaax Malick nga xam ni mooy suñu marraine ren di ci woo nag euh, Adja Jeene ba Fall Gaynde Waalo mais nag suñu paree bu mag bii di Alxaaji Mamadou Guèye ñu ngi koy woo ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la ñu cërale bés bi bàyyiwuñu kenn nag bés bi bésu ñëpp la ku ci ñëw di nga di nga ci gis loo xam ne dina kawe sak njot dañuy xëy def ay kaamil ren ñu ci rendre hommage suñu soppee suñu xarit alxaaji Moussa Seydi bu ñu xëyee def kaamil yi 17 heures pile ñu amal xadratul jumaa kan mooy diriger xadara bi Serigne Fata Sarr bu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin bu xadara bi paree oustaz Oumar Ndoye amal waxtaan sur la vie et l'œuvre de Serigne Babacar Sy bu ñu paree ñu delluwaat ci Dalia daa di ñëw nag ci guddi gi ci gàmm gi kan mooy taxawi gàmm gi oustaz Tafsir Abdourahmane gay kan mooy taxaw animation bi Sidi Ahmed Mbaye bu Tiwaawan ñu ngi woo ñëpp ku fa ñëw Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum defal la taraanga yu kawe te ku fa ñëw dootoo ko rëccu ñu ngi woo ñëpp naaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. fukkeeri édition ak benn lu yàgg dëgg la. imaam jiite wax na dëgg de waaye daal Abdou Karim sal mi nga xam ne nag dëgg-dëgg moo dëkk Zang Mbaaw bëgg loolu président de la République président bu ART boobu nga xam ne daal lu xew ci gox bi dugal na ci loxoom moom itam ñu ngi koy wócc ba su mag boobu li kenn tudd Zang Mbaaw te sa xel dem ci moom. eh gars yi defe naa ne daal mbokku jullit yi mbokku tarixa bi ñi nga xam ne tamit ñoo nekk nag ci tarixa yépp imaam mi ngi leen di woo di ci ndokkeel nag sunu soppe Maodo Cissé bu moom itam ñu ngi koy woo ci bés bu mag boobule ànd ak kan ñi nga xam ne nii tubaarkàlla fu diine wootee ci gox bi kenn du manqué ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di woo bés bi nag day bés bu mag bés la boo xam ne bésu diine la bésu jàmm la waaye bésu sutural nag looloo tax nag ki woote woote ñu wax ne daal képp koo xam ni kile yaa nga dëkk ci gox bi boo déggee rek tant bi tàmbali wala daal dëgg-dëgg nga dégg jàng yi tàmbali ah woo nañ la de xam ne daal bés bi ca bés loolu daal sa carton d'invitation ay gars yi bés bu mag baa ngi noonu de kañ lay xew le 28 lay xew avril fan lay xewee ci Zangmaaw ci terrain bu mag bi ak kan imaam jiite ay mbay na biir na biir na biir ya nabi salaam alayka TV di biddéew bi di gindi ci xadaratu ak tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de tijaaniya